mbokk yi asalaamaaleykum jërë ngeen jëf ci ànd bi ak réew mi FM daleen ak jàmm ci seen émission ànd aar aaru ni ngeen ko baaxoo am dimanche bu jot ci waxtu bi ànd ci ak ONG EMAD ak plan international ñu jagleel ko mbas mi ak euh, ni ñu ci aaro waaye aaraale ñi nga xam ne ñoom la ñu nekkal tey nag euh, ci avant dernier numéro bi ñu am mbégte dalal euh, saltige Mamadou Mbeng bu Yoff sang bi ñu ngi lay ziar di am mbégte lool dalal ci waxtaan bi soxna si ñu ngi lay fay soxna Fatou di nuyu seen téléspectateur yu Rewmi FM yëpp nuyu sunu président bi ngeen fi àndal muy Abdou xaat ak partenaire yu mu àndal yëpp muy plan international si xeex wàllu mbas mi vraiment ñu ngi leen di nuyu nuyu ñëpp ziar ngeen. jërëjëf saltige Mamadou bu Yoff. Abdou Khadre nag jamono yëpp dafa doon daw daalalu woon <laughs> waaye ñëwaat na euh, président ñu ngi lay euh, nuyu di la jox sa wàcc waaye di la ziar bu baax a baax am mbégte jàkkaarloowaat ak yow si ànd aar aaru. waaw Fathiam maa ngi lay fay euh, di la remercier di remercier waa réew mi yëpp ci liggéey bi rafet bi ngeen xamante ne yéen a ngi ànd ak ñun ñu koy liggéey boobu ba tey te dara ñaaw ci macha allah félicitations à di remercier saltige Mamadou Meng. ci nangu bi mu ñu nangu dalal ci diir bu gàtt bi ñu ko ko yëgalee léegi wante loolu du ñu bett ndaxte moom moo saltige la mais acteur communautaire la bu am engagement amul dara luy xew ndakaaru te du ci taxaw def ci dooleem def ci alalam kon boog lii bettuñu ci moom ndax noonu la yàgg doxalee di remercier aussi Lassana Sagna ci engagement bi mu am ci liggéey bi boobu ba tey ak nu ko defee te mu rafet di nuyu Baba si Eh, di ko di ko jaalewaale ndax looloo tax sax ñëwul waaw di ko jaale bu baax a baax di ñaan ki dëddu yàlla xare ko àjjana ak mbooloo mépp jullit te sarax bi yàgg ci loxo yi jërëjëf jërëjëf Abdou Khadre ni nga ko waxee ñuy jaalee ñun ñëpp baba si yore projet bi daanaka di ko doxal chargé Covid bu euh, plan di ko ñaanal yàlla may leen xolu muñ te xaare nag ki fi jóge Abdou Khadre euh, ni ñu koy baaxoo euh, xanaa bàyyi la nga ñëw ak saltige ak auditeurs yi déglu xëy na am na ñoo xam ne gulet ci tey ñuy déglu ànd aaru nga dikk ñoom ci tënk ci projet bi li ko tax a jóg ak itam tey li ñuy xaar ci saltige en tant que kilifa ni nga ko waxee acteur communautaire ñuy xaar ci moom jëm ci li tax a jóg euh, ànd aar aaru jërëjëf saltige euh, ànd aar bi moom programme am la ndaxte bi ñuy ñëw yoof lu ñu fi def yëpp daf fekk moom mu nekk ci liggéey wante bañ koy tàmbalee yëpp ñëw nañu waxtaan ceex moom xanaa ñu tënk rek projet ànd aar aaru euh, EMAD moo ci ànd ak plan international ndax bi mbas mi dalee ci réew mi ku nekk am responsabilité ba nga xamante ne ci nga ci ci nga bokk ci la ñu waxtaan ak plan ñoom tam ñu nangul ñu ko ñu def proposition bi ñu ne nañ ànd doxal ko naka la programme bi doxee ànd aar aaru mu ngi yem ci région de Dakar région de Dakar ñu tànn si juróom-ñaari district sanitaire ñaar ñi nga xamante ne euh, ba mbas bi tàmbalee foofu la mbir mi gënoon tar muy district sud bi ëmb Gorée Dakar Plateau Médina Gueule Tapée Fass Colobane ak district ouest moo ëmb Ngor Wakaam euh, Yoof ñu jël district nord sa Grand Yoff euh, dem dans la banlieue district Kër masar district Pikine ak district bu Guédiawaye donc yooyu la ñu jël district yooyu nag ñu jël fa juróom benn fukki quartier juróom benn fukki kartie yooyu ñu ne ñoom la ñuy liggéeyal ndaxte mënuñu dajale lépp bu nekk da ngay xool li nga xamante ne moom nga ci mën nga def ko ci juróom benn fukki quartier yooyu quartier bu nekk ñu tànn ci fukki nit muy juróom euh, benn téeméeru relais communautaire yi nga xam ne dañ leen formé jox leen équipement ñoom nag ñoo am responsabilité ci quartier bu nekk fukki relais fa nekk dem tànn juróom ñaar fukk ak juróomi famille ménage jox leen information bi wax leen lan mooy Covid bi naka lañ koy moytoo naka la ñu taxawee def recensement bi ñu ne nag soo leen demee di waxtaan ak famille yi nañ leen yóbbal jumtuwaay yi. muy lave mais complet savon eau de javel ak masque wax leen nag naka lañ koy jëfandikoo naka la ñuy raxasee loxo yi naka la ñuy takkee masque yi parce que léegi léeg gis nañu ni masque yi sax mën na nekk lu yóbbaale Covid bi ci takkin bu bon da koy jëlee wet gi summi ko jëlaat ko wet ba nga xamante ne moo féete woon sa gémmiñ xëy ne dina la indil loraange. programme bi noonu la tëddee mais ñu ne dañ ciy profité pour. Euh, say waaw pour euh, wax ak ndaw ñi jàngal leen euh, ana lan mooy seen warugar ak seen taxawaay ci mbas mi parce que souvent dañu seetlu ne àddina bii ñu nekk su crise amee couche bi nga xamante ne moo gën a vulnérable par rapport ak crise boobu mooy xale yi te souvent dañu leen di setti crise bi nag bu mënti doon muy épidémie muy guerre muy inondation ak lu mënti xew xale yi ñoo ci gën a loru souvent te su mag yi di dem di ko xeex dañ leen di bàyyi gannaaw ngir yërmande ñu ne loolu warul nañ leen boole ci biir xeex bi boole leen ci formation bi mais suñu demee di seeti ménage yi ñu wax leen ana naka lañu war a taxawoo euh, ndaw ñi parce que nag su àddina bi waree yàqu li ñu war a aar mooy jiw bi su guerre amoon mara deytaali wala lu mënti doon li nga xamante ne moom la ñu njëkk aar mooy sàq ba sa biir sàq ba jiw yi nga xamante ne moom la ñu war a ji jëmbat ëllëg dañ ko war a aar loolu nag ci biir askan bi mooy xale yu ndaw yi su liy amee dañ leen war aar parce que ëllëg ñoo koy nettali retour expérience bi ñoom ñoo ko war a utiliser pour que lu mel nii bañ a dalati ci kaw àddina bi parce que li ñuy ñaan mooy ñu jég am ci njàngat ba nga xamante ne num ñu bettee ba loofal ñu ba sonnal ñu ëllëg lu mel nii bañ ñu bettiti su ñëwee ñu ko Euh, dékku mën ko arrêté nu mu gën a gaawee donc euh, saltige tey euh, loolu moo taxoon ñu ne nañ ñëw parce que programme ànd aar aaru bi dañu ne nañ seeti kilifa yi seet si nañ fi Abdoul Aziz si bu sëñ Sidi Ahmed si moom moo ko ubbi seeti nañu bi mujj nii abdul Aziz Kébé dem nañu au niveau de la famille omarienne donc wax ak ilimaan bi waxtaan nañu waxtaan bu yaatu ak yeneen kilifa yu bëri yi nga xamante ne jaar nañ fa tey nag ñu nañ la seet si pour nga waxtaan ak askan wi waaw ci Covid bi liñ ci jàngat ax naka lañ ko war taxawoo naka la ñu war a moytoo naka la ñu war a def ak lan mooy warugaru kilifa yi par rapport ak lii parce que foog message bi àgg pour ko ñoom ñu xam naka lañ ko war a euh, naka lañu ñu war a def daal donc euh, si tënk Fathia am euh, ndaxte maa ngi déglu laas fan yi passé yëpp. am na lu ma jot a jàng ci moom waaw ndaxte am na stratégie de communication bu leer bu gàtt bu clair bu limpide donc euh, asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullah macha allah itam Abdou Khadre euh, sa wax am na solo euh, saltige euh, kon ni ko Abdou Khadre waxee projet bi moom yaakaar naa ni du lu ñu lay sax présenté muy bees ci yow ndax ni mu ko waxee soobu nga ci démb lu jiitu tey ñu laaj la rek xanaa gis-gis bi nga ci am ci taxawaayu kon EMAD ak plan international ak projet bii di ànd aar aar. mooy ma taxawaay bu rafet a président moom. waxuma communauté bi sax Sénégal yëpp dañ ko war a ñaanal yàlla ak ñi mu àndal mooy ñoom Lassana gis nañ ne lépp lu yëngatu ci wàllu réew mi concernant loo xam ne dafay indil gàllankoor njaboot gi toujours dafay jël les devants des fois ñun kilifa yi sax des fois mu ñuy fàttali suñu responsabilité parce que lu xew rek dinañu ci oo nañu nangam xew na kon boobu taxawaay lañuy xaar ci bépp Sénégalais kon comme suñu mbokk la. bokk ci communauté bi bu amee ràññeeku googu ñun tamit dañuy sant yàlla di ko ñaanal vraiment li mu wax dëgg la projet bi du luñ may présenté dama koy jëkk amal man ci ñi mu jëkkoon convoqué ci bureau ñu waxtaane ko ci la mais ñu naw taxawaayam parce que lu am solo la def moo waa plan parce mbas moom feebar la boo xam ne day wàll ñëpp jàppoon nañ ne sax metti na sunu côté yi mais fii lay gën a méttee donte la sax mënoon na gën a yegg mënoon na bañ yegg fi mu yegg te si capital bi la gën a lawe te ñun ñoo dëkk si capital bi muy suñu ñaari district yi mooy est xaw ma ouest ak ouest mooy yoof mooy mooy Ngor Wakaam yoof ak sud bi ah mu dem si taxawaay bu am solo ànd ak waa plan def lu am solo parce que feebar la boo xam ne dañ ne yi kay jo yi fi muy mën a jaare ba wàll nit ki dafay dafay dafa dafa bari te loolu bu hygiène amul mën na fa jaare jaare si nit mu wàll ko nit matuwaay yooyu bi ñu wooyee ñoom yooyu matuwaay lañ jëkk jël mooy sélectionner ay famille si biir quartier yi jox leen matuwaay yi mu wax mooy jox leen ay lave-mains jox leen gel jox leen eau de javel def leen savon jox leen masque loolu ku ko def bëgg na feebar bi bañ a law bañ a kii bañ a sori ñun nag en tant que autorité depuis lors avant mu di ñu woo sax si lii fekkoon ñu tàmbali mu ñëw gën ñu renforcer parce que lii mu joxe si tey si commune Yoff maire bi def na keneen def keneen def waaye bu ko defuloon dina am ñu am ndimbal am ñoo xam ne duñ ko am kon loolu dafa am solo mu def ko ak waa plan kon dañ leen di ñaanal yokkute ñaanal ko sax ñaanal sama bopp la parce que man maay moom mooy man ak waa EMAD parce que man membre laa si muy lu am solo parce que daf ñu war a jàngal ñun waxuma ñun dëkki Afrique yi particulièrement Sénégal feebar bi am na lu mu ñu jàngal lu bari bu ñu si jógee suñu comportement yu bari war nañ ko changer parce que li ñu indil si gàllankoor dafa bari kon appel bi ñuy def mooy ñun kilifa yi parce que xale dañ ne xale yi ñoo koy jëlee si mbedd mi walla ko mag ñi kon kilifa gune ne di responsable fari famille war ngaa jël sa matuwaay yi nga war a jël yëpp mooy war nga communiquer sa njaboot wax leen yee leen ci li xew bu ñu génnee si mbedd mi ten war nga leen xa wax nan la ñuy comporté woo si mbedd mi ba dem doxi seen soxla ba wàññi ko donte la suñu village yi sax c'est un peu compliqué mais ñu ngi sant état bi tamit si mesures yi mu mujj jël parce que ñun suñu waax yi dafa am côté dafa am ay plage te avant ñu jël matuwaay bi ñu jël yow da nga daan tiit boo daan romb plage yi da nga daan des milliers de personnes. donc nekk si plage yi daje fa. kenn du takk masque ñii di naan ataaya ñi di feebar boo xam ne dafay wàlle ñii jóge Pikine ñii jóge Parcelles ñi jóge Ngor ñi jóge fu ne nit jóge fa xam nga loolu état bi mesure boobu mu jëloon jël ni mujj jël ni du ñu wax an nañu wax ne sax presque moo wàññi feebar parce que tàngaay moment tàngaay la ñu ne am na kër yoo xam ne yaatu na di fa mën a bu tàngee nga am foo toog teg sa chaise mais am na kër yoo xam ne si biir village bi fii sax am na ñoo xam ne géej rek la ñuy mën a dem pour mën a féexlu ba minuit wala deux heures du matin parce que seen dëkkuwaay yi xat na te conditions yi réunirul da ngay mën a obligé dem géej mais état bi ba heureusement bi mu jàngatee plage yi ni muy demee mu jël matuwaay boobu man dama naan jël sama oto départ fi dem topp corniche géej bi ba gannaaw Mali mais des milliers de personnes kooku moom moo gën a gaaw feebar feebar bi la parce que ñi waaw ku nekk fi ngay jóge te feebar la boo xam ne man nga dox ak moom te doo xam ne am nga ko loolu den beneen beneen beneen beneen inconvénient na si yow feebar bi ñu daje nga daje mbooloo ñu waxtaan ndekete yow yaa ngi feebar bi moo tax masque yi lu si am solo la vraiment lépp mën nañ ko négliger mais masque moom ay lay yëwét moom kuy dem si mbooloo wala ngay génn di dem waa nga ko boo demee fa ngay ne xam naa ña ngay seeti dinañ jël seen matuwaay mm-hmm. dinañ joxe gel dinañ joxe raxasukaay boo waxee ba pare nga takkaat sa masque mm-hmm. parce que feebar la boo xam ne mënoo mm-hmm. <laughs> mënoo mënoo wax ne diwu am na ko wala diwu am ko waaw kon loolu ñu ndaw si taxawaayu Abdou Khadre ak kuréelam gi mu jiite sant tamit waa waa plan international sant leen bu baax a baax parce que jëmm ji lu ko waay defal rek ak ak associ bi association bi ñun nga ko defal kon loolu ñu ngi siy sant yàlla di ñaam rek njaboot ñu gën a maytu ñu gën a moytu ba ñu dem a dem gis nañ ne taux bi mu ngi gën a baissé nañu def tuuti effort rek parce que ñun ñëpp sonn nañ ñun ñëpp dañu am ay société di liggéey mais yo feebar bi tax na lu bari am an taxaw waaw ah, kon loolu bu ñu defee tuuti effort rek nit ñi am tuuti tuuti discipline discipline nag moom dafa war si mag war si ndaw waaw parce que boo amee maladie boo xam ne dafay wàlli yow ku ki moom xale bi sax mën nga di ko fàtte mais mag ku ki moom vingt quatre heures sur vingt quatre war na jël matuwaayam ba feebar bi moom waaw bu yàlla dogalul loolu si moom mën na si mucc te bu si muccee mën na muccaale ndax njabootam xale yi nag mooy li ma wax rek foo ñu saytu leen donte la sax mënoo teg sa si 24 heures di di xale yi bu leen dem fii dugal leen fii waaye nga nga ngay wax rek te bu ñu génnee teen bu ñëwee nga ñu leen bu baax raxas leen jël seen yëre fóotaat ak yooyu hmm. waaw. jërëjëf saltige euh, Mamadou Mbengue bu yoof moom la ñuy dalal ci ànd aar aaru euh, xanaa nag ñu ñëw ci fii Yoff particulièrement naka ngeen ko dundee ku ne xam na ne euh, lébu yi moom duggalante lañ xam daanaka da ngay dugg ci kër génnee ci saalu keneen kon booloo moo fi am ak jaxasoo feebar bi bi mu ñëwee ban njeexital la am ci seen dundin ak yi nga xam ni moom ngeen a tàmmoon di def. njeexital yu bari parce que suñu quartier bi xëy nañ benn benn 24 heures rek. Mm-hmm. presque jën nañ genn wàllu quartier bi yëpp yóbbu leen quarantaine ah. mm-hmm. ñun ñëpp si parce que niñ si communiqué des fois dañu communication bi du baax bari na ñu ñuy jëloon si quartier ñun dañu dem ba dañu tiit ñun ñëpp a tiit mm-hmm. uti ay masque dem si suñu partenaire ñu jox ñu ñu ñaw joxe parce que tellement que jëloon nañ presque genn wàllu quartier bi yëpp si kaw mm-hmm. yóbbu leen quarantaine heureusement bi ñu demee nañ ko waxe woon demewul noonu loolu sax ñu dimbali mais ñu fi jële woon ñëpp mooy li nga wax ay villageois lañ. Mhm. mënoo toog ne duma ma nangam du ma nangam doon sax am nañ tuuti discipline léegi. Mhm. ci dëj yi. Mhm. am nañ tuuti si ngénte yi ndëpp yi presque arrêté nañ ko. parce que kilifa yi moom bu ñu tëralee dara. ah kuy njaboot rek da nga si man comme comme gàmmu mënatul am appel amul. màggal amul yu yooyu bu amul les grands événements. kon événement yu ndaw yi. war nañ ko mën a muñ. waaw ah, moo tax. li nga wax dëgg la des fois nga tiit des fois nga dem nii daal dem naa benn dëj baag ni booba feebar bi sax wàññeekuwul ni mais bi nga duggee di jaale da tiit mooy li nga wax rek si lébu yi tellement que y avait du monde nit ñi dankaloo si néeg bi dangay ngay obligé yow nga takk sa masque jaale rapidement génnaat dem sa oto laal jël taal sa oto dem mm-hmm. villageois yi des fois dañuy parce que dëkku pêcheur la pêcheur des fois dafay dese tuuti xel yàlla moo leen binde noonu nit ñu baax lañ ñu dëggu lañ ñu nangoo ñax lañ pour yóbbu seen njaboot mais des fois dañu dese xel parce que li ñu fréquente géej dafa bare waaw mais terewul doon nañ sensibiliser ak état bi mesure yi mu jël loolu sax si lu ñu dimbali la ba yàlla daal ni mu waroon demee fii demee ko loolu nag ah ñu ngi siy sant santaat emaat ak ñi partenaire yi mu àndal muy rajo bi ak waa plan moo tax lawul ni mu war a lawee fii ah, li ñuy wax nag mooy ah ñu gën a gën a taxaw rek waaw ah, ànd ak emaat ak ay partenaire am ñu dem ba benn vingt quatre heures ñu ne amuñu kenn ku am feebar te loolu si ñu rek la dépendre parce yàlla moom boo bëggee mu dimbali la da ngay dimbali sa bopp ba pare li ngay wax danga koy gëm nekk si ba pare yàlla doog a indi ndimbalam manoo ne dañu am fee boo xam ne dafay wàlle dafay wàlle ba pare yow nga bëgg a mel ni nawoon da jël sa matuwaay wasu sa ax def li nga war a def yàlla doog a indi ndimbalam ah ñii day feebar bi jaaxal na leen xaaral ma indi sama ndimbal boolee ñaan ak moytu ak jël matuwaay yi nga war a jël yëpp parce que loolu suñu kilifa Alaaji Maalik depuis peste bi am waaw dafa wax ne docteur lu ñu leen tëralal rek ni ngeen ko def parce que loolu li leen yàlla dénk si kaw suuf ki nga xam ne yow doo docteur tëyeer nga kii yor wàllu paj ne la maytul nàngam maytul nàngam parce que dafa am nàngam du fi am yow boo gëmee yàlla liñ la jox conseil boobu da nga ko war a def parce que ñooñu ñoo yow yaa opté woon jàngi leneen ñoom ñu opté jàng wàllu paj moo tax alaajement yi dafa teel a artu njabootam ne wax ne sax dégg naa si sëñ Abdoul Amin mu wax ne bu doon jàngaat leneen méccu faj méccu docteur lay jàng waaw kon nga xam ne waaw loolu xam nga nga xam ne ñooñu li ñuy wax ah mayu yàlla mu ngi si mm-hmm. waaw moo tax luñ la si tëgalal rek yow da ngay moytu def li nga war a def yàlla doog a andi ndimbal loolu daal la ñu attirer attention nit ñi ñu ngi xool ne taux bi mu ngi gën a baissé lii des nag ñun ñooy dolli tuuti effort rek ànd ak waa EMAD ak plan nit ñi gën a communiquer gën a moytu rek feeg un un à deux mois ah, yàlla mën na def waaw lañ sa bëgg yàlla defal ñu ko. Mm-hmm. <laughs> saltige euh, ni ko Abdou Khadre waxee kilifa yi taxawaay bu am solo la ñu war a am ci mbas mi te itam gis nañu ne am nañ ko ci xëy na foofu dañuy ubbi parenthèse tuuti rek ngir ñi nga xam ne xamuñu luy saltige sama classe gi nga wax ñu luy sa taxawaay tey ci dëkk bu mel ni Yoff bu fee ñuy déglu mën a xam sa responsabilité ak sa taxawaay itam fan lañu ko mën a nattee ci ci li xew. waaw saltige de organisation communauté lébu ñoo ko def ku ne ñoo am lu la dénk mais wax ne sax. ndomb saltige gi ñu bari dañu foog ne mission li si ëpp mooy ay jinne xeram loolu pàcc la si rek ndomb tànk ki xam na bu ñu say mbokk bu ñu xësee ba daje jox la ndomb tànk mooy lépp lu sa communauté bëgg da nga si war a taxaw mooy xam lu leen neex la walla ñu xam lu leen naxari loolu da si war a taxaw bu dee saltige dafa am jaraaf am ndey ji am mag ñi dañu maandu bu njëkk laman moo amoon laman baat bi dafa daan daje si kenn nit bi jamono doxee ñu ne baat bi daal mënatuñ ko dajale si kenn nit dañ ko éclaté biñ ko éclaté ñu jël nag xeet ay famille dénk leen cër yooyu man suma maam moo njëkk a nekk saltige yo mooy Mandialou Diouf loolu moom histoire bind na ko kenn dindiw ko il est le premier saltige fii à Yoff ñu di ko donnante ba sama papa suma papa li tax mu man a ne saltige ma ne saltige mooy sama ndijaayu yaay bi parce que Yoff néegu ndey la ñuy fale boo demee Ngor néegu bàyyi la ñuy fale boo demee Wakaam néegu bàyyi boo demee douze penc Dakar néegu bàyyi la ñuy fale saltige nag loolu mooy mbiram mooy lépp lu communauté bi def bi muy baaxa bi communauté bi tegu yoon mooy dañ ko daan consulter. waaw. waaw parce que dafa am ay àndandoo donte la ñun ñëpp ku si ne am nga rab wala jinne cosaan boo xam ne yaa ko doon na depuis tes yaa ngi jëflanteex moom di di di di waxanteek moom mu di la orienté di la jàppale si yenn parce que jinne lenn rek la la man mbindeef la comme ni nga nekk mbindeef malaaka nekk mbindeef leneen ne mbindeef mbindeef ku nekk dafa am mission bu la yàlla jox si kaw suuf mission yi nag dajewul léegi si benn nit dafay dafay am ñi man li ñi man li ñi man li mhm. jinne nag ci kilifteefu doom aadama la lay ne loolu nag dafa am lu luy tax mu ne mhm. mooy dafa am loo war a def am loo war a saytu am loo war a nekk mhm. ba ngeen am partenariat bu ngeen amee partenariat nag yow jàppal ne say mbir peut-être yàlla mën na la see dimbali parce que jinne xam-xam la am di di de la si lu ñëwagul lu ñëwagul toujours dañ la si prévenir des fois sax yow duñ la wax yow du Khadre mooy tëdd Dakar suñu jeunes yi feeñu ko nekk à neel saltige nangam ak nangam des fois yow sax message bi du ñëw si yow loolu lay wax kay feneen feneen lay jaar ñëw yow nag nga génn wax message bi fekk yow message bi si du Khadre sax la jaare c'est ça la communauté. mbas mi amu jo amu leen ci benn message bu ngeen jotoon à l'avance. du jeex. Hmm, ci mbas mi nii ñu ne. def nañ ci li ñu man ah. soxna si la communauté lébu maa ngi lay wax yàlla moo leen baax ñoom ak na sunu frère. Hmm. ak communauté Casaase. Hmm. ak communauté séeréer. dafa am communauté yooyu yàlla moo leen baaxal léegi nag neexatul wax. jamono ji dafa yàqu. ku nekk si communiqué léegi. affaire cosaan affaire rab ñëpp si wax yow tamit da ngay mujj yow yow li ñëpp sañ doo ko sañ parce que dafa am na ñoo xam ne dañu génn rek pour privilège seen privilège boobu mais man sañu ma loolu bu ma ko doon def rek commencé wàññiku sañu ma ñu wax ma ne ndakaaru dañ si war a def dara wala réew mi nga nga nga nga tëdd di nelaw même bu ma waxee fajowul maa war a seet pexe faj kon su ma la déggee yéen jot ngeen def ay sarax ak i mbir. pour euh, wàññi xëy na loraange yi. mbas mi waroon ñëw dama la siy wax ñett rek. Mm. avant ñëw xalifa jéen bu APEX bu toogoon fii du ma weddi parce que lépp lu ñuy wax duñ ko wax si mbedd dañ ñu ko waxee ak tettal dañ sa am pour ñu si tuddoon Abdou Khadre tey Ndakaaru dinaa taal sama nekk président dama la soxla. Mm. dem fekk ka Ndakaaru nekk ah nangam xew na. waaye yow dañ ma wax ne nangam nela la laasana tamit feeñ na si dañ wax nangam xalifa Diène avant mas mi ñëw ñun dañu am dañu am tettal ñu ne ma yow lii yaa koy def loolu may def ajuna na deux cent mille kenn defu si cent franc maa ko defal. genre sarax lii des ndëkk si alalu yoof lañ koy defi apex si moo yor alalu yoof ma seeti ko guddi këram ñu tëju néeg mu ne ma saltige li nga wax. ma ne ka ah, yow lañ ma wax ne lii des génn leen ut leen nangam boo koy ut man damay prudent mm-hmm. boo koy ut seetal ku la doy nga jox ka liñ koy ute mu def ka si poosam ñu ànd wala ma boole kaax ko mu àndal mu ut nangam ñu dem place nangam lañ koy def nangam lañ koy def mm-hmm. mu ne ma def nga li sa bàyyi daan def de mm-hmm. dem ñëw dem ñëw ne ma ah man de waxtaan nañ mais dañ ne comme dañuy def assemblée générale su ma jëndee nag si xaalisu APEX si dañuy foog ne assemblée ma ne ko ah, man daal wax lañ ma sant loolu nga ngay wax daal détail la. Mm-hmm. man la ma sa waroon def naa ko sama 200000 kenn joxuma 100 francs te booba maa ngi maa ngi def dem defuñu ko booba mbas mi amagul. Mm-hmm. wallaahi. Mm-hmm. amul day c'est dañ lu nekk lay dikkal soxna si dañuy bëgg a dee. lu ne ngay def sañatoo sañatoo génn di wax. kon mujj leen def loolu ñu waxoon. def non nag bi defuñu ko. ñu jamono dox ñu amaat beneen tettal. imaam ratib bu yoof bu toogoon fii li may wax du ko weddi. Mhm. guddi laa dem wax nañ def nangam dañ def nangam nañ def moom dama kaa dikk ne ko ah, nangam daaw jéeg wax naa ko nañ def nangam wowal nangam ñu def nangam xëpp tam mu dem woote ma ne ko bu ma si feeñ dimbali ma rek mhm. mais erreur bi mu dem dafa dem ñu jàng ba pare mu wax ne ma ut alal la yëpp maa leen jox. xam nga ñaan goo xam ne dañ koy defal communauté wala sa réew ña koy ñaan sax yow yaay utaat xaalis jox leen xam metti na loolu metti na mu def erreur bi mu def mooy bi mu ñaanee ba ba pare ba ñëpp kontaan daf leen wax ne maa ko wax ma ni ko imaam dem bi ma lay wax dama la woon du ma si feeñ hmm. parce que communauté bi noonu rek ngay mën a hmm. nekkee ma wax ne ko war nañ def saraxu ndox ñun suñu kër gi feebar du fi dugg parce que ñun suñu cosaan bi ñu waxee defuñu ko dañ nañu ut leen biteelu biteelu ndox Evian wala ki ut suukar su bari def ko si tëj ko kaste ko teg ko seen bunti ne ku fi indi feebar bi tamit li nga ko yóbbaat doo ko fi bàyyi nga def ñi nga mën a wax nga wax leen parce que mënoo yor rajo bi naan dañ naan kii day xaalis la bëgg xam ngeen Sénégal li mu tëdd léegi loo wax ñu ne xaalis mais journée de prière yi ma doon def di ñaanal Sénégal bi ma ko defee léegi en mois et demi la. booba yow loolu nga gisoon. mbas mi damay dañuy ñaan. maa ut nag kenn defu si 1000 francs def ko fii ñaan ñaanal Cap Vert pare ñu ne ma foo nga dem ilu Soumbédioune te ñëpp xam nañ ne île bi dañ ko interdire kenn du fa yëg utal xaar bu weex dem place nangam ñu wan ñu fañ koy defe ñu ut xaar. ma oote ministère de l'environnement comme directeur de cabinet bi sama wëllëre la gisee ma ne ko dañ am ndigal bu ñu war a defi île ba oowal ma conservateur mu man ma may autorisation mu oote foofu conservateur di ko baax mbokk laa sanal mm-hmm. ma ko fa fekkee rek saani laa ne yow di bokk affaire mm-hmm. ñu dem ma ut xar dem jëndi xar bu baax cent et quelques mille loué bateau Ngor ñu ma dem ñu ne amuñu bateau ma dem si le pirogues vertes doomu Liba Seck moo ma lebal moo ma loué bateau quatre-vingt mille ma ànd sama frère ak sama ñaari doom sama ñaari frère yóbbaale conservateur parce que joolaa la ñu dem defal defal réew mi saa kenn yëgu ko. loolu yëpp ci cadre mbas mi la woon. waaw parce que mënuñu Sénégal mënul dox mënul dox te du loolu da si ànd. Mhm. mënul ne mënul ne. Sénégal mënul dox te du loolu da si ànd parce que dafa am ñi nga xam ne ñoo yore vole politique am ñoo xam ne ñoo yore coutume cosaan am ñoo xam ne ñoo yore diine ji ku si ne ci ab cër la bu yàlla joxe yooyu nag suñu bos dafa sooxe parce que léegi ñu bari dañ si dugg pour ut xaalis ñu bari dañ si dugg pour ut xaalis pourtant ñi siy dugg ut xaalis tanewuñu la ba léegi yow mi siy ut nii boo defee nga leb wala nga ut sa xaalis def si ñii ñii siy ut xaalis tanewuñu la ba léegi waaw loolu ngay sant yàlla mooy mooy man ne yaa ngi si yoon loolu la gis nga cosaan kenn du ko fooy te léegi suñ lébu yi moom dañ si bari folklore yaa trop de folklore mag ñi am na loo xam guddi lañ ko daan def am na loo xam bu jant bi la bu fajar laa jot lu bari dañ ko daan def si secret mm-hmm. mais léegi li ñuy def yëpp dañ ko exposé te job te buñ ne baatin baatin mooy lu lu lu lu nëbbu boo def baatin te baatin bi boo koy def junne nit da ngay fekke wala cent personnes nekkatul secret man mii 2S invité woon nañ ma benn télé Tunkara xam nga dafa njaboo ma dem mu invité ma ne waaw da ngay yow rab yi nooy defa jinne nooy defax ñoom nangam nangam mujj ne ma dinaa ñëw dinaa indi caméra yi nga ñëw filmer sa xamba yi ma ne ko boo ma fayoon milliard milliards du tax du tax ma ma ma dugal si nga di si teg caméra milliards ma ne ko xàmbaye loo xam boo laa dem ni nga jaar si ëtt bi jaar si salon jaar chambre à jaar si espace doog see dem kooku bëggul yëfam weeru si biti sa secret kay yaa koy téye mu ne sa secret waaye boo ko tegee si tele bi wane say bàjjin wane say ndaa ñu gars yi wane ko exposé ko mooy ñàkk nga <laughs> parce que jinne dafa am personnalité bañ na ko sax ku doyee di du ànd ak moom si surtout suñu yu yu lebu yi nii ku la ku la koy wax ni te amul personnalité bu bul sax compter si moom ñoom ñoom dañu am personnalité parce que dafa am lu ñu yenn si waxuma Sénégal àdduna fii mooy saw jant jant bi fii lay fii lay tëdd te ko xool Cap-Vert ni mu bindoo waa ngaa xam ne du na communauté bu ñuy bàyyi gannaaw boo gisee Sénégal lu bari di leen dal ni mais loolu la dañu négliger Dakar léegi yu bari te loolu la ñoo ko xaw a teg suñu bopp waaw kon loolu laa la si wax saltige du malaaka si kaw nit ñi man lii ëpp sax si si si si si développement laa kay def damay porter sama communauté di wut ay bourse di leen jox ñuy jàng di wut ut wut ay ay ay nit di leen di leen utal liggéey dajale ay nit ñu fexe ñu jàpp si dara bu mosquée yi tilimee ñu dem nettoyé ko bu plage bi tilimee ñu nettoyé ko yooyu yëpp dañ koy def waaw kon wàllu saltige pàcc la si mooy bu yëfu cosaan jotee bu yëfu cosaan jotee nga dem rek defal ko lang sa man parce que dafa am ay jeunes yoo xam ne ku si nekk famille bu ne dafa am sa bu bopp am am rab boo xam ne nag bu dëkk lay doon yooyu yëpp dafa baax xam xàmme te bari na kuy wax maam njare fii boo ko boo ko woowoon mu waat nga tegal ko kaamil gisu ko bari na koy wax nii di ndëppaaxawa wallaahi kon yenn saa show bi da ci ëpp communauté hmm. mais bu jëkkoon su ma ñoom pàpp biñ fi nekkee kii fekk na leen fi mag ñi hmm. luñ la wax du dañ moom buñ soloo sax jëm si yow li nga xam ne ñii ñëw si yow yeneen nit lañ parce que yàlla leen dimbali woon ñu sell maanu lu ñu la wax dëgg la si ñoom du ñu fen du ñu lekk lu lewul maji lébu noonu lañ meloon de dunde seen ñax boo moo tax moo tax dañu puissant woon kenn sañu woon def dara sax te doo leen consulter parce que booba man nañ seen bopp du ñu tappale boo gisee sax ñu di ñu noggatu nii léegi loolu la gars yi dañu wax rek bu ñu gars yi noggatu woon fii dara du xew parce que bari na koy wax fii bu tàngee sax da ngay daw. saltige euh, yaakaar naa ne euh, wan nga ñu sa responsabilité fi mu toll te itam ci mbas mi Abdou Khadre yaakaar naa ne taxawee na ko parce que tamit révélation la li mu fi wax nii lu ñu gisoon la avant mu def ci alalam def ci temps wam def ci lépp euh, rien que pour prévenir est-ce que tey saltige mun nañ jàpp ne loolu nga def ak xëy na la nga digle woon ñeneen def ko donte am na yoo xam ni matewuñ ko am na tey lu mu def ci mbas mi ndax yaa ngi koy wax sànq ca ndorteel ga muy président OMS muy Nations Unies ñoom ñëpp li ñu waxoon ci Afrique moom yaakaar naa ne bu fi daloon man ak yow danañ leneen lu dul toog di wax ak Abdou Khadre parce que daanaka kon day fekk jeex nañu ñu ngi doon yaakaar kaa yu bari ñu ngi doon yaakaar bakkan yu rot yu baree bari est-ce que tey yow fi nga toog am nga yaakaar ne loola nga def noonu Euh, ci ay sarax gannaaw ay digle yoo xam ni jot nga ka am na njeexital ci mbas meeg tey ni mu wàññee ko xam nga yàlla moom yàllaay nangu moom dañ la wax defal li nga war a defal mais li si des moom yàlla kay nangu. waaw mais dina nangu ñaan jaam nga yëg ko nga xool. situation xam ne yow kat yàlla nee na la waaw donte sax xëy na. du waaw bu bu waaye. am na lu mu ci nangu. waaw mais africain yi bu leen yàlla mayul woon. ñuy ay ay xeet yoo xam ne dañuy ñaan ci alxuraan ak cosaan yëpp kon feebar bi dina gën a garaaw Sénégal doon de la am na xam ne ñu man nañu defal seen réew lu ne te kenn du ko yëg. Ah, ndax nga wax ni ñu koy doog a waaw ab kii sama xarit la yëgu ko. bi may jënd nag woowu ko ne jox ma dix bi may dem ilu ilu ilu mat Madeleine. gore fële kenn yëgu ko. te bien avant monsieur Faye ma fan capitaine Faye con mooy woon conservoir waa séeréer damay dem daaw jéeg di fa dem ma wax ko ne ñuy dem ànd ak ay béninois ñu sol yére yu gàtt di dem ilu ilu ilu Soumbédioune boobu moom man ngaa faw yi fu ne ba mu des boobu foofu soxna si foofu ku ku xam dara wala nga yëg dara boo fa demee di nga xam ne fii duñu fo du fowukaay parce que bi bu yoof boo taxee xam nga day gis gi boo dem ba léegaal da ngay dem teer yéeg mais iilu Soumbédioune boo fay dem da ngay wëri iil bi gannaaw la jox tefes gi te dafa am bunt bu géej gi ginnaxee kenn du dugg kenn du génn boo fa duggee géej gi ginnax doo génn dalay lay tëj bunt la dafa am bunt dafa am bunt nii da ngay ñëw comme bunt bi nii dugg ci iil bi mu am ay barab magi lébu yi dañ lay wan mag ñii fi newoon mag démb ñi biir bàmmi dañ lay wan seeni place ba yoof ba Ngor Ndakaaru mañ il bu garaaw la te man daal ku fa dem dogu si li ngay ñaani yàlla dinaa ko nangu il bu garaaw la loolu xaw ma war nañ ko fonka de ma wax capitaine fay gis nga lii na dakk île bi du île bu ñuy fooy ma wax ko Jibi Samb bu fi toogoon nag ma nekk ko Jibi île bi dina am lu fa xew avant accident booba ma ne que lii ma gis gars yi di ko def commencé ko fréquenter comme Ngor. ak Gorée léegi am lu xew si Ile. Ah, mooy chavirement bi amoon 2019. Ah, Jibi Samb bu fi toogoon ne saltige waxoon na ma ko. ma ne que noo def gaal këpp fa. parce que ñafa ne duñ ko nangu. xale yaa ngi fa commencé dem di ànd ak ay jigéen di ko fréquenter. mais bi gaal gi këppoo daf ma woo ne ma ma ne ah, Jibi ah yow la bett. mais man bettu ma. Hmm. am place yoo xam du du pour fo. foofa dem ngeen fa ñaan pour yàlla aar. Euh, Cap Vert ci mbas mi amul deux mois. def naa si presque cinq cent mille sama xaalisu bopp yàllaa ma dimbali woon ma am marché liggéey gañe sama xaalis. communauté bi leen mënoo yenu seen ndombu tànk ba pare te bu def jotee boo amee doo leen nangoo defal mënul nekk am sa communauté dara dal ko wala sa réew nga am yow. di wër di laaj pour ñu pour ñu jox la pour nga def kon kay li ngay li ngay yenu du li nga li nga doon du yow. macha allah xam naa ñu ñëw Abdou Khadre di nga reetaan waaye démb ak tey foog ma ñëw def ko ci saltige ak taxawaayam ci communauté bi parce que macha allah bëri na ay mbir yoo xam ne war nañ ko ci xam léegi bu weesoo sarax yi ak ñaan yooyu nga def ci communauté bi bi nga dellusiwaatee ban taxawaay nga am ci wàllu sensibilisation. ndax wax nga ko sànq yàlla du defal kenn lu man mhm. da ngay def la nga man la nga mënul nga bàyyi kook moom li ngeen man xëy na mu bokk ci wareef yi mhm. mooy yeete ak sensibiliser bi nga ñëwee ban taxawaay nga ci am def nañ yëpp communiqué nañ si télé bi am télévision locale fii man tamit maay président parent d'élèves yu lycée Yoff mhm. bi ñu waree tàmbali njàng dama ut matériel yu bari samay wóllëre jàppale ma ma ñëw ay masque yu doy yóbbul ko élèves yi yooyu yëpp def nañ ko communiqué ut mi léegi booba man am naa personne personne la ngi doon liggéey moom maa mbas mi ñu teg eau de javel teg ndox teg yëpp teg savon teg gel ñiy liggéey ñu utal leen ay masque ñu ku dem toilette ba ñëw ba yooyu yëpp def nañ ko communiqué ak waa Yoff wax nañoo ñoom ci tele bi waaw wax ku nekk matuwaay bi nga war a jël pour ñu moytu bi julli jotee tamit noonu lay boo demee jumaa Yoff tey ajjuma chaque ajjuma ñu nga fa daje distanciation bi gel raxasu bu jumaa ji feesee ñu tëj cour bu feesee ñu tëj chaque jour waa yoof ñu ngi julli te noonu lañ koy organiser julli it bi tamit noonu suñu de passage maa ngi nuyu la xalif général des Layènes njabootam yi waa vision 129 jàppalewaat waa jumaa yof may leen ay drapeau yoo xam ne dañ koy samp pour mën a respecter distanciation bi waa loolu def nañ ko waaw communiquer nañ wax nañu wax njaboot yi waaw vraiment loolu def nañ ko si. wax nga sànq itam ne lu bari tey ci communauté bi fii jëloon nañ leen quarantaine leen mm. ku ne xam na ne am na fu mbas mi tolloon xëy na tey wàññeeku na stigmatisation bu rëy amoon na ci ñi nga xam ne dañ leen di quarantaine après nit ñi di leen daw kër gu ñu wax ne amoon na cas suspect wala kaa confirmé nit ñi di ko moytu di leen joxañ baaraam est-ce que loolu dund ngeen ko fii ci Yoff dund nañ ko déggoo man la am na benn 24 heures si si commune xam nga communication dafa garaaw boo ne benn xale jël utiliser Facebook bi rek wax ne famille diw am na rek mais après ñu ñëw presque wër quartier bi ñaari quartier yi nga Ngaparou jël ñu bari yóbbu leen quarantaine heureusement yàlla mu juju dimbali nañ ko waxee woon demeewul noonu mais am na fi suñuy mbokk yoo xam ne amoon nañ ko su ma sœur jëkkëram maa Ousmane sœuram amoon nag maam Kumba moom dafa demoon di faju benn dispensaire rek ñu wàll ko ko foofu moom dem faju dem ñu yóbbu ko Fann fa la fajoo ba génn dawee ñëw fii tey mu ngi taxawu sax rek am bu feebar dawuñu le <laughs> ku feebar wér moo leen feebar feebar la rek <laughs> boo feebaree dem faju bu wér jaratul nit ñi di la daw ah. waaw loolu daal dund nañ ko fi vraiment am na ñu ko fi amoon ñu ngi fréquenté nit ñi ñu ngi dem ak ñoom di ñaar leen di seeti ñu ngi ñëw si kër yi. parce que bii <laughs> dëkku fa dëkku mbokk la. xam kenn du daw sa mbokk. waaw lu mu metti metti tey jii bu doon sax day wàlle moom bu amee nu mu demee rek gars yi dem jegeñ ko. dëgg waaw léegi moom noonu lay dunde quoi. dama bàyyi la nga noppalu tuuti ma mm-hmm. ñëw ci Abdou Khadre euh, li fi saltige wax yëpp Abdou Khadre mm-hmm. ban jàngat nga ci def xam naa ne am nga peut-être tuuti surprise mm-hmm. euh, su ma ko mënee waxee noonu ci li nga xam ne saltige wone na ko fii yëpp taxawaay bi nga xam ne am na ko ci euh, lataa mbas mi di ñëw gannaaw ay xëy na tetal yoo xam ni jot na ko ma bàyyi la rekk nga yëkkati ci sa kàddu waaw xam nga moom de daf la wax rek nga xamante ne noonu loolu mooy liggéeyam ndax ba may tàmbali sa maa ngi la naan saltige mooy saltige ci ndakaaru wax na la lii saltige mais c'est un acteur communautaire quelqu'un qui est au service de la population et communauté communautés nekk nit ku discret aussi non seulement discrétion boobu moom la ñu xamoon ci mag ñi démb wante moom discrétion bi boobu sax tempérament la ci moom euh, moo tax euh, ma jox ko cër lool waaw li nga xamante ne mooy responsabilité ci ndakaaru itam mu ngi koy doxal macha allah Euh, loolu nag mooy ndakaaru ndax loo gis ci àddina rek dafa am biir gannaaw bu mu amee biti nit ñi nag apparence bi la ñu privilégié mais baatin mu ngi fi dëkk boo dem am na la fa ne lu nëbbu am ñi mu nekk ci seen loxo ñu war ko wéyal war ko doxal te wax na ne répartition des tâches dafa am kii faj mooy faj su joxee ndigal nañ ko topp kii jàngale mooy jàngale moo ko xam su joxee ndigal nañ ko topp kon boo ku nekk am nga responsabilité ñun nag waa Akhlu Zahir ñu ngi dox suñu Zahir ci programme ànd aar aaru mais nag wax ni ku nekk ci domaine ba nga mëne ba nga xamee defal la nga war def ngir mbir mi jóge fi ñiy recherche pour xool lan mooy Covid naka lay doxe naka lañ koy mon kii moytoo nekk ci laboratoire yi ñu leen di encourager nañu liggéey seen liggéey ca biir laboratoire ya docteurs yi nañ toppatoo malade yi sëriñu diine yi nañ ñaan ci arxuraan ax nañ koy defee ñi nga xamante ne ñoo yor aada nag xam lu fi mag yi bàyyi woon ax nañ ko doon doxalee démb ñoom tam ñu def ko alhamdulilah rabil alamin nañu tiite woon ci mbir mi demewul noonu wante ni mu demee ba tey metti na parce que benn rangooñ bu tuuru yàq na lu bëri ndax kenn warul jooy kenn warul am naxar te ku am feebar ci ni mu demee nii ñu ne feebar nga on voit que ni muy demee saltige wax na la ko benn quartier ñu jël moitié quartier bi yëpp yóbbu en quarantaine c'est la catastrophe ñun dal nañu emat laasanaa mu ngi nii dañu dem formation le lendemain waa district sud oñu ñu fa ngeen demoon formation il y avait deux contaminés ci biir formation ba on a passé la journée ensemble ñu sonné alerte te laas moo organisé woon formation ba ak baaba ñu yóbbu ñu mobiliser EMAD ñëpp la ñu yóbbu test am na sax ñu doon bëgg a daw waaw parce que jamono jooju feebar bi nañ ko doon waxee da ngay tiit c'était la panique bi ma ootee réunion di wax ak gaa ñi mais c'est extraordinaire laasanaa li muy vivre moom nii rek su la ko nettalee da ngay yéebu ci yàlla parce que ki ko informé ne il est infecté il l'a très mal fait fekk ne mu ngi jugg ci car transport en commun di dem mu oo ko wax ko ne ko accal bi ci teel ko paniqué waa ji wàcc ba portable réer moom it mu jànn xee xamul fu mu nekk bon mais alhamdulilah rabbil alamin au final on s'est rendu compte kenn amul contamination mais j'ai dit gars yi nañ sant yàlla parce que ñu ngi ci benn programme de riposte ba nga xamante ne mbir mi Sénégal kenn xamagu ko am na ñu ko dund am na ñu ko dundul mais par cette occasion ñun vivre nañu expérience Covid bi xam nañu suñu la owee ne la sa njaboot entre nañu en contact direct avec des malades lan ngay ressentir xam nga suñu lay testé lan lay lan ngay ressentir xam nga aussi stigmatisation bi mooy lan parce que commencé woon na waaw ba bu ma bëggee def communiqué bi am nañu ma ne non bul def communiqué xaaral bëri tax si saa si rek dama bëggoon def communiqué ne EMAD a été on a eu contact avec des malades fermé nañu bureau bi pour xool période ñu respecter période bi les 14 jours pour xool demee ni nii wala demee ne ne mais c'est une expérience qui nous mais mu gëmloo ñu leneen gëmloo ñu ne que les mesures yi ñuy teg am nañu seen efficacité parce que ba ñuy def formation ba dañu respecter lépp li nga xamante ne moom mooy recommandation ñëpp takk masque ñu respecter distance yi respecter lépp et on s'est rendu compte on a dit ndimbalul yàlla la mais ni ko saltige waxee da ngay dimbali sa bopp yàlla dimbali la respecte nañu mesures barrières yi kon ñun on a vécu une expérience qui nous a prouvé que les mesures recommandées ont leur efficacité kon ñu ngi oo ñëpp ci ñu respecter mesure yooyu mu bëgg ci xëy na yokk dara saltige bi ñuy tàmbali moom xam na ci dara parce que on a informé le grands serigne de Dakar Dakar la ñu visé les quartiers de Dakar ak seen configuration traditionnelle yi ay village la yi ay quartier populaire la yi ay yu kan yu mel noonu moo fa nekk donc ñu ne puisque dëkku Lebu yi dañ ci bokk nañ waxtaan ak grand serigne mais bi ñu ko joxee information bi daf ñu ñaanal nañu wéy leen ñu tàmbali ak moom ñu ne nañ informer la ville de Dakar wax ak moom tànn ko comme marraine jël monsieur Guirassi tànn ko comme parrain moom aussi mu wax ñu lu am solo parce que la vécu la maladie moo taxoon sax ñu tànn ko pour moom mu mun ñu nettali son vécu mais il nous a parlé de la dimension spirituelle de la maladie euh, muy dimension ba nga xamante ne na mu ko exprimer keroog vraiment xool yëpp ñoo tooy ndax maitrise bi nga xamante ne am na ko ci. mais ñooñu ñëpp ñu ci ñu ci boole wax ak ñoom c'est pour que ñu peek le maximum ci communauté bi mu am une adhésion populaire une adhésion massive autour de ce programme là pour que impact bi ñu mun ko ressentir comme il le faut macha allah yàlla defal nañu sutura ba dox nañ ci lu bëri moo tax bi ñu ñëwee Yoff ñu ne saltige Mamadou Mbengue ci la bokk Njaga Sàmb ci la bokk ñoom yónni mbay ñoom day sàmbalaay yëpp ñu dugal leen ñu def le tour des quartiers traditionnels waxtaan chef de quartier yi waxtaan ak bàjjenu gox yi mu am une adhésion massive moo tax le travail qu'on a fait à vraiment c'est un travail extraordinaire exceptionnel et je pense que résultat yi defaguñu kii bi mais sentir nañu ne am na am na am na am na impact euh, mooy sa émission bi ñuy def rek aussi avec Rewmi l'accompagnement de Enquête de cent 221 loolu yëpp permettre ñu vraiment ñu lancer message bi wax ak askan bi di ñaan yàlla ñu génn ci nu mu gën a gaawee. xanaa balaa euh, ñuy delluwaat ci saltige Mamadou Mbengue ñu mm. bàyyi la rek nga tëj. waaw euh, remercier ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi ci terrain bi di liggéey. ñaanal leen yàlla muy docteurs yi muy acteur communautaires yi muy ñi nga xamante ne ñoom ñooy wax di lancer message yi vraiment liggéey bi de fii ci réew mii am na lu bëri lu demeewul na mu war demee wante lu bëri aussi demee na na mu war demee et moo tax ñu am résultat yi loolu dañ ciy wax alhamdulilah rabbil alamin di ñaan nag ñu bañ a euh, vivre relâchement parce que euh, catastrophe lu mu rëy rëy rëy nit yàlla moo ko bindee façon ba nga xamante ni mën na miin lu ne lu mu metti metti mën na ko miin nit day miin lépp donc buñ ko miin nañ continuer combat bi éveiller suñu sensibilité nekk en alerte ba jëlee ko fii comme ni ko saltige waxee ñu dem ba dund ñu ne tey de yeewu nañu Sénégal amul cas te même suñu àggee ci étape boobu bu mu tax ñu toog parce que mën na dem ba ñu ne amoo cas nga amaat cas am na dëkk yu. Chine demoon nañu euh, ba amatuñu woon dara ci ay cas Covid. mais ñëwaat na ba parce que ba tey xamaguñu Covid bi mooy kan. Mhm. waaw xamaguñu Covid bi mooy mooy kan foog ñu xam ko nañ ko war a xamee. taxaw nu ñu war taxawee même suñu demee ba ñu ne zéro cas am na nañ jël benn moment ba nga xam dañu continuer combat bi dans le temps mais su loolu jeexee itam am na beneen combat bu des mooy euh, les euh, les conséquences yi fii bàyyi séquelles yi mu fii bàyyi ci wàllu économie ay sëy tas na ay famille éclaté na am na tey ay ay ay nit ñi nga xamante ne liggéeyatuñu ñu yor seen kër am na ñi nga xamante ne fa ñu dëkk ñu fay jëlee nañ leen fa donc li nga xamante ne jur na ko comme catastrophe dans les familles et dans les ménages kenn xamul lu mu day xale yu jigéen yi am dégg naa ne am na benn étude buy wax ne euh, euh, engrossement xale yu jigéen yi dafa yokku ah xale yu ñu confiné waaw promiscuité bi dans les maisons mën nga nekk sa kër mu yaatu mais am na kër yi nga xamante ne tafaas yi bu bu bu ruq jinne ba mu ñëwee di ma ne président jug parce que rukk jinne soo leen seetaanee ba Covid bi dugg fa dina doy waar. alhamdulilah rabil alamin parce que dañoo laa yaay ne les quartiers les plus défavorisés ñoom la mbir mi di daaneel ñoom la mbir mi di faagaagal yàlla def na ba quartier yooyu daanaka ba léegi ñoom amuñu benn cas mais pour promiscuité bi jur na yeneen catastrophe dans les ménages. yu raw Covid sax peut-être te mesuré guñ ko kon nañ taxaw nañ vigilant ñu ñaan ñoom saltige ñi nga xamante ne yàlla may na leen xam ñu continuer ñaan. ñi continuer def la nga xamante ne mooy seen warugal ba yàlla musal ñu ci mbir mi. macha allah wax ji rafet na saltige xanaa ñu ñëw ci yow rek daal di tëj euh, waxtaan bi euh, li fi Abdou Khadre euh, wax yépp mu jëm ci taxawaay bi ngeen am ak itam liggéey bi def yoof dégg nañ ko macha allah kon ñu bàyyi la rek nga daal di tëj xëy na boo amee itam message boo yóbbante ndaw ñi ak yoofuwaay ak Dakar waay de manière général nga daal di koy yëkkati. waaw xanaa émission bi ndokkeel leen si yéen waa rajo bi ndokkeel président ak waa plan yi ñu feexal liggéey bi ñaan yàlla rek feebar bi yàlla na fi yàlla gaaw jeexal waaw recommandation bi may wax rek mooy li ñu waxoon si biir waxtaan bi rek mooy nit ñi gën a am discipline xam nga léegi Sénégal moom indiscipline bi dafa bari léegi loolu il faut ñun ñëpp ñu yaraat suñu bopp bu ñu bëggee yàlla dimbali ñu te waa Dakar surtout Dakar laa féete Dakar bari na lu ñuy dugg léegi du woon seen domaine boo gisee lu bari jëfe léegi Ndakaaru mooy léegi dañu dugg si loo xam ne du woon seen domaine du woon seen cër kon loolu bari am na yoof léegi léegi lu nekk ñuy si te loolu baaxul pour la communauté baaxul sax pour ab jullit waaw mooy agression commencé na fi am nit ñaa ngi commencé utiliser drogue te loolu vraiment bi nga nekkee ndaw daaw gis sax kuy dox ci mbedd di tërëf walla di naan sàngara te léegi loolu dafa commencé am suñu communauté bi commencé di law Sénégal loolu nag ah mooy ku nekk rek na si jëlaat sa responsabilité te ñu wàkkirlu ci yàlla mooy ñun ñëpp dañu war a ku nekk boo tëjoo sa néeg xam na yow yàlla dafa la fi wàccee pour yow nga def lu baax jéem lu baax ba kër ba la fi yàlla jël mm. bu fekkee bëgg nga sutur des fi am na mag damay wax ne sama papa bi muy dund mm. amoon na génération ñu mu bokkaloon génération du jeex mais chaque jour nga dem ci place ñu wax turam loolu dara mayu ko juddu bu foor mayu ko ko nangu woon a ànd ak seeni mbokk lu ñu am bokk ak ñoom lu ñu nekk ñu nekk si ñoom loolu mooy ndono lébu mooy ndono nit ku baax loolu ñu ngi koy wax les waa di ko wax les Yofois di ko wax Sénégal gépp Sénégal sunu autorité yi tamit foo ñu jëlaat seen matuwaay surtout les politiques ah politique yi li ñu yàq léegi si si réew mi dafa bari loolu il faut politique ñi ko daan def bu jëkkoon bu ñu paree dañuy jiite ji ay jumaa bu le bu ñu jeexalee seen politique du leen tere Mamadou Diop bi mu jeexalee daloon ñëw juma di julli Alioune Samb député maire la woon imam ratib la Caaroy il faut ñu indi xeeti politiciens yu jëkk yooyu. politique yi noo gisee seen taxawaay. ci mbas mi non jàmbaar lañ. jéem nañ si wax dëgg yàlla jàmbaar lañ. waaye méthode bi ñuy defee. moom war nañ ko seetaat. waaw mooy boo soxlaa nit ñi rek des fois ngay dala nit ñi gis nga nekk seen disposition xam nga xam nga lii may def nii bu fekkoon autorités yi xam nañ li xew duma si ñàkk sama xaalis de kon dinaa ko teg fii jaamu yàlla bu ñëw am ordonnance wala mu soxla dépense ma jox ko ko waaye damay obligé def ko loolu da nga ñemewoo leen te lii ma toog ni dañ defe ne lébu yi moom yàgg nañu wax lislaam dañuy ñaan kaamil de man <laughs> nit ñi sax dañ ne bo buñ gisee dama am daara joo xam ne dama defar ñoom partenariat lu ma rey si nag jàng naa kaamil pratiquement fii chaque mois bu ma des fois sax chaque mois deux mois ñu jàng fi deux fois kaamil su ma amee vingt cinq mille rek oo xale yi defaral leen dëkk ñu jàng kaamil ñaanal dëkk bi ñaanal jaam yàlla bu ñu waree ren di gàtt ma dem ut ren di boole si non bu ne moom année bu ne dina jàngal ma vingt kaamil wala quinze waaw yooyu yëpp ñu ngi koy wax di waxaat rek ñun ñëpp ñu gën a farlu feebar bi ku ne ñaan ñaan ak moytu ak jël matuwaay yi ñu war a jël yëpp bu ñu ko defee rek yàlla mën nañu dimbali vraiment di ñaanal rajo bi yàlla na ko yàlla gën a yaatal ñaanal sunu amin de antenne 221 yàlla gën a yaatal seen télé yi ak seen rajo yi ñaanal président moom ñu ngi koy ndokkeel fierté la pour la communauté fierté la pour Sénégal ñaanal laas ñaanal ñëpp yal na ñu yàlla jàppale. te may ñu li ñuy def yàlla mu ñu ci gis suñu bopp lépp lu ñuy def rek na yàlla tax ak la communauté bu ñu ko defee rek yàlla mën nañu dimbali. allahumma salli ala sayyidina muhammad jërëjëf saltige Mamadou Mbengue yow itam yàlla na dëgëral taxawaay bi yokk kàttan gi yokk itam mën-mën gi ba ni ngay taxawoo ndakaaru te kenn du ko yëg euh, mu yokk yàlla itam euh, fay la lu kawe sa njort ñuy gërëm ñi doon déglu gërëm Abdou Khadre ak euh, Baba si bu plan international dellu di ko jaale di leen dig daje dimanche incha allah waxtaan ak beneen kilifa ci mbas mi ba léegi Fatou Thiam Ngom moo fare woon ci kaddu gi di nuyu Laasana di ko ndokkeel remplacé na Abdou aminta ak ñëpp kon jërë ngeen jëf ñu yendoog jàmm